وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسول الله إخوة الإيمان في كل مكان نحييكم بتحية إسلامية تحية طيبة مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينبكي جلدي نجي yi نيو nuyoo bi ñu lislaam tànnal euh, te baaxoo di leen nuyoo fii ci kër gi di Thiès Prestige te daan leen baaxoo nuyoo ci seen benn jataay muy jataayu lislaam bu ñuy tuddee jësbul xuluub ila allaamil xuyuub li cheikhul xadim radiallahu anhu kaana bi karamihi baaqil xadim nuyo bobu nak ñu ci tambulé ci buntu bi ginnaaw buñu ñu yalla jullu ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam ta l'islam don ay teggin su ko defé nak ñu jaaré ci buntu bi ndax alquran moyi ñu jàngal baada aus billahi minash alsheytan rajim bismillahi arrahman rahim wa atul buyuta min abwabiha bu ko defé ñu tambulé ci buntu bi ñu nuyu bu baax kilifa kër gi di directeur général pap dumbuya waye di jël nuyo bi diko ko ci loxom ngir mu jàllaleel ñuko ko ci mbooleem kep ko xamne yaangi yaa ci kër gi ak ci walu go ci kaw ba ci suuf bayiwuñ kenn ñoo leen di nuyu den ziyaara bax di nuyu bu bax suñu mbokkum bopp alhaji sen suñu daawde gi ñoo ngi koy nuyu bu baax baax Cheikh mohammed Mbeng euh, ñoo leen di nuyu yeen ñëpp di leen ziarah di nuyu suñu mbokk cameraman bu yi nga xam ne na ci euh, euh technique bi ba nga xamne insha rabbi di ngeen ko gis ci gisin wo xamne day doon gisin wu wu ñu ginaaw ba ñuy jall dem ba touba nuyu cheikh muhammadul muntaqa mbake di ko ñaanal yalla yalla ko fi yalla bayyi dolli ko wir defal ko tawfiq ak taysir ba yan bi nga xamne moy yanu l'islam bi nga xamne mom la ko mamam shaykhul batale mu man ko mottali bi hormat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. di ñew ba mbacke di ziyara di nuyu señ Amdi modou Mbenda fal mom mi fi toga yu mam shaykh Ibrahima fal Babul Muridin waye di fa jaaret nak di nuyu bu baakha baakha baax dem ba nuyu khalifa bi abou bakkar ak mbooleem xulafaa yi nga xam ne yépp ñoo nekk ci réew mi bàyyiwuñ kenn ndax mbokk yi ñoom yëg nañ ne benn lañu yëg nañ ne ñoo bokk pas-pas yëg nañ ne ñoo bokk yéene ndax loolu la ñuy woo njabootug lislaam gi fu ñu toll moo tax saaboo ci jëlee kenn nuyu ko rek day daal di matale lépp moo tax ñu ngi koy jaarale ci ñoom ñaar rek ngir jàllale ko ci ñi ci des ñépp waaye dafa jaare di nuyu di ziyaara bu baax sëriñ maam Cheikh Fall ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare muy suñu mbokkum bopp di suñu kóllëre di suñu xarit di suñu sëriñ waaye di fa jaare di nuyu bu baax nag euh, ki nga xam ne mooy sëriñ Mbacke Madina ibnu Cheikh Abdul Qadim Cheikh Abdul Qadim ibnu Cheikh Mouhamadul Amin Bara Cheikh Mouhamadul Amin Bara ibnu Cheikhul Qadim radiyallahu waaye mbokk yi di fa jaare nag bu baax wàcc ba ci suñu mbokki bopp suñuy dëkkandoo mooy suñu mbokki waa Touba Pekoug yi di leen ziyaare ñoom ñëpp tàmbalee ko ci suñuy wayjur waaye ak képp koo xam ne yaa ngi yewwoo biir Touba Pekoug ngay góor di jigéen ngay kilifa diine wala ngay kilifa aada wala ngay mag wala ngay ndaw ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waaye rawatina waa daairatu nuuru daare ni ci njiital alxaaji Omar Diop ca Touba Pekoug waaye tamit di fa jaare di nuyu bu baax di ziyaara suñu dëkkandoo yi nga xam ne ñoo nekk Touba Lelo tàmbalee ko ca kilifa yi ca kaw ba ci ñépp ci suuf waaye di ca jël rek ku mel ni soxna aadama Faye nekk jigéen ju xër ci ñun bëgg lislaam lool di ñu woo jamono bu nekk di ñu nemmeeku di ñu ñaanal ak mbooleem ñi dëkk Touba Lelo ñépp bàyyiwuñ kenn jaare fa nag ziyaara waa Koundaan Euh, jaar fa ziyaara ñi nga xamante ne ñooy waa Kër Mamaram euh, di ziyaara tamit waa Nimzaat cité Xaati cité Xaadim cité Dabaax waaye di ziyaara waa Ngomsaan waa Peku Séréer waaye di ziyaara kër Mbambara kër Koromoxo waaye tamit di ziyaara waa kër Mor waa kër Demba Ngoy Jaxate bàyyiwuñ kenn mbokk yi euh, di jéggulu nag ca waxtu xat wi rek moo tax waaye buñ sañoon dañuy dugg ci kër yëpp kenn ku nekk ñu ziyaara la jox la suñu nuyoo jox la suñu ñaan ndax mooy li ñu warloo ak yow di ñaanal ñëpp tawféex di ñaanal ñëpp xéewal waaye di ñaanal ñëpp jàmm yal na ko yàlla saxal ci ñoom saxal ko ci jullit ñëpp saxal ko ci réew mi euh, su ko defee mbokk yi kon euh, di jégalu bu baax ci mbokk yi nga xam ne wax dëgg yàlla woo nañ ñu wet gu nekk doon ñu seet di ñu nemmeeku te ñu gëj ci barab bi te dara waralu ko du dul ngànti jamono lenn li ngàntul yaram la waaye lenn li ngàntu administration la nekkoon ci wàllu yi nga xamante ne mooy joganteb xale yi la tàmbale woon ca séefa ba jamono yi yooyu yëpp da cee nekkoon kon daal ñi leen di jéggalu bu baax a baax waaye buñ sañoon wax dëgg yàlla dañu wuute waaye ñàkk a wuute yàlla rek mooy ki ko jagoo yi moom rek mooy ki dul wutee ndax laa taxusuhu zinatun wala nawmu waaye tamit mooy ki nga xamante ne di du gëmmentu du nelaw du tàyyi du feebar kooku mooy borom bi subhanahu wa taala bu ko defee mbokk yi seen mbokk seen xarit seen taalibi alxaaji imam Mamor Ñaŋ moo ñëwaatak ak yéen ci seen jataay bii ñuy tuddee jazbul qulub ila allaami alquyub li cheikhul xadim radiallahu anhu mbokk yi ñu ngi taxawoon ci poñ bu am solo bu ñor yalla lol moy julli moy julli julli nak nek ben poñ bo xamni jublu way ba way ba way nak buñ koy wax ci walu tubaab mom la wax objectif waye bu fekke dañ koy wax ci walu arab moy al hadaf way julli way julli mo nekkoon defar jikko defar jikko ba tax sun borom waxon nañu Eh, waqimus salat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar kon gis ngeen julli kon dara tax ko wona juk jóg tabax nit ba jikom rafet lo rek la moy li taxone juk eh, julli ndax eh, gis nañ ne yantu bi sallallahu alayhi wasallam sallam dem na ba wax sax keru xewal gogu di aljanna bala fa kenn dugg faaw nga yor jikko ju rafet mo taxone borom bi subhanahu wa taala indi won julli ngir mu tabax nit ba jikom rafet mo taxit boo demee ci xeeti jaamu yàlla yépp muy euh, arkaanul islaam alxamsa yenn bu ci nekk rek tabax jikko moom moo ko taxoon jóg moo nekkoon jubluwaay ba waaye tamit ñu gisee ne julli ni ñu ko waxee woon amoon na ay sunna ak farata te farata mooy loo xam ne su manqué ca jaamu yàlla ga bu ca dañee jaamu yàlla googu dootul mën a mat ñu tolloon ci fukkeelu farata ba fukkeelu farata ba Euh, Cheikhul Xadim radiyallahu anhu di wax ci téeram boobu ñuy wax tasawur siqaar ne aasiruha aasiruha mbokk yi fukkeel ba in kunta saqtidaa in niyatuhu summa la dal mu ne yéene ji ngay am bu fekkee ne da ngay roy dañ lay jiite yéene ja ngay am ci nangu jëmm ji jiite la yéene joojee moom sunna la Euh, ba ca topp mu ne wa jaxlu tartib aari mu ne toftale gi ngay toftale moom farata yi mooy fukkeel ba ak euh, benn euh, ba ca desit ba ca topp mooy dal ga ngay dal ca rukkoo ya dal ga ngay dal ca kàbbar ya dal ga ngay dal ca sujjóot ya yooyu yépp dafay bokk ci sunna yi Euh, ba nga xam ne moo ci topp mooy yemmoo gi nga yemmoo yemmoo mooy say cër yi ni nga leen di yemale nga xam ne duñ sutante tànk yi ci taxawaay ba wagg yi duñ sutante ila axirihi yooyu lañuy tuddee al daal euh, beneen ba ca topp mooy sëlmal ga ngay sëlmal moo nekk fukkeel ba ak ñett fukkeel ba ak ñeent day daal di mat ci jataayu sëlmal ba maanaam toog gi ngay toog ngir sëlmal waaye tamit fukkeel ba ak juróom mooy kaddu gi ngay yëkkati wax assalaamu aleykum min hamsati al limimikum kamaraw nit ki nga xamante ne mooy li ngay tàmbalee ca hamsa gi nga xam ne moo nekk ca alga mooy assalaamu aleykum boo ca demee alif ga jiitu da gis araf bu ñuy tuddee al hamsa ca kaw noon la ko Seex Xaadim waxee mu ne min hamsati al limimikum kamaraw man naqal bu ko defee mbokk yi euh, ñetteelu tomb bañ ca toftal mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu njàpp Euh, njàpp nag mbokk yi moom la ñu indi ba ci suñu tomb bi ñu ñëw incha arab bi ñu daal di dugg nag ci li nga xamante ne mooy sunna yi ndax nañ ko waxee rek bëgg ñu jàpp ko ba man koo jariñoo su ko defee dañuy daal di dugg rek ci sunna yi nga xamante ne moom mooy sunna yi wala yi nga xamante ne moom mooy faratay njàpp waaye bala ñu caa dugg nag faaw jukki tuuti lenn ci ay tomb yi nga xam ne mooy njariñu jàpp ndax mbokk yi ab jullit wala nit ku mu mën a doon lépp loo jug di ko def te xamoo njariñ la te xamoo njariñ la cawarte gan ca waroon a am yëg-yëg ban ca waroon a am dootoo ko ca am lépp di def te euh, yàqu-yàqu ngaañ ya ca war a am bu ko xamul du ko mën a moytu du mën a bàyyi xel la muy def lan la bu ko defee nag kon njariñul jàpp euh, daf cay bokk moom suñu borom mi nga xam ne moo ko santaane eh, daf cay bokk wane ne jàpp ak jaamu yàlla la mbokk yi jàpp ak jaamu yàlla ni lu julli doon yàlla ndax suñu borom da ko santaane ni koor doon a jaamu yàlla ni asaka doon a jaamu yàlla ni aj makka doon a jaamu la ñàpp doon a jaamu yàlla te maqaama mooma nag la am maqaam moomu nag la am ndax képp jaamu yàlla gooy def te àndul ak njàpp mooma mooy laab googee jaamu yàlla gi dafay daal di des ndax laab ga ñaari moo am laab goo xam ne dafay laabal aw yaram ak ñu bàyyi xel ne dafa nekk xeetu jaamu yàlla gu mag ci xeeti jaamu yàlla yi ci des ndax kat euh, ni julli nekkee jaamu yàlla nekke farata koor nekke ko noonu aj makka nekk ko noonu joxe asaka nekk ko noonu noonu la jaamu yàlla googu di nga xamante ne mooy ñàpp noonu la doone moom it ak xeetu jaamu yàlla bokk na ca ay njariñam it njariñ yi mu am tolluwaay bi mu am daraja ji ko yàlla jox bokk na ca dana tax julli wér mbokk yi lii tax na julli wér ku nekk war na ko bàyyi xel ndax julli mooy lëkkale diggante jaam bi ak boroomam mooy lëkkale diggante jaam bi ak boroomam saa bu jaam bi taxawee ginnaaw bu jàppee ba wóor ko ne set laab na mu taxaw jublu penku mu nga tàmbali nag di wax boromam waaye tamit na bàyyi xel ne boromam mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis waaye doonte moom nag gisu ko moom lañu ñu xadis ba doon naan doon wax ne al ihsan an taabudallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak kon mbokk yi gis ngeen julli ni mu toll waxtaay wa nekk mooy dem wuti dox ànd ak sa ndox ma ngay wut nga natt ko ci sa cër yii ba mu leer nañ ndax ñetti cër yii ñoo war ndox mi mën a jàpp muy bët ak bakken ak làmmiñ moo tax lislaam ne la ndox mi na ko xool ci sa bët bu la wóoree ne melokaanu ndox la yor mën nga cee jàpp bu noppee nga xent ko sa bakkan bu la wóoree ne xetuk ndox la yor mën nga caa jàpp su boobaa bu ci bu ci des ñetteel ba mooy nga yëmmi saw làmmiñ mu mos ndox mi bu fekkee ne cafka bi ndox rek la caf bu boobaa di nga ci mën a jàpp <coughs> bu ko defé kon mbokk yi ñu gis né japp lolu moy tax julli gogu lu wir alquran ci kaddu borom bi subhanahu wa taala mo ko leral ci suratul maida ay bi nga xamne mo tolok ay juroom ben sun borom ya ayyul ladzina amanu idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiq wamsahu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsaxu bi ruusikum wa arjulikum ilal kaabayni ilaa ba walakin walakin yuridu li yutahirakum wa li yutimma nicmatahu alaykum laallakum tashkurun loolu la ñu suñu borom wax nga xam ne noonu moo tëj aaya ba ndax day aaya bu gudd dañ njëkkante ak waxtu wi suñu borom subhanahu wa taala joxe ndigal ne yéen ñu nangu yéen ñu nangu ne damaa leen yilif yéen ñu nangu ne maa seen buur yéen ñu nangu ne maa leen sàkk yéen ñu nangu ne àllaaxira dama ñëw ma attewaat fay leen seen i jëf moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñu nekk ci daa'iratul iman iza qumtum su ngeen jógatee ila salaati ba jub ba dëgmal julli nag li ma leen di wax rikk waaye bala ngeen a tàbbi ci julli gi rikk bala ngeen a door julli gi faxsilu wujuhakum na raxas seen xar kanam yi wa aydikum seen loxo it na ngeen ko raxas ilal marafiq ba ci tikk jara ya wamsaxu na ngeen masa wujuhakum seen xar kanam ya wa aydikum ak seen loxo ya ilal marafiqi ba ci conco tikk jara ya wamsahu ngeen masa bi ruusikum seen bopp ya wa arjulikum seen tànk ya ni ngeen ko raxas moom it ilal kaabayni ba ca dojoor ya kon suñu borom gis ngeen foofu mu jàngalee njàpp ak foofu mu ko santaane ca suratul maida waaye la mu tëje aaya ba nag dane waaye na ngeen xam ne seen borom bëggul lu dul laabal leen waaye ndeke tamit bëggul lu dul mottuli ay xéewalam ci seen kaw ndax su ngeen jotee ci xéewale ngeen dëkkee sant yàlla te bu ngeen dëkkee sant yàlla mu doon la ndekete kon jàpp ñu gisaat ci beneen mbir ci biir ndeke dana yokk ay xéewal ndax di euh, tax muy yokk ay xéewal mooy su la ko suñ borom joxee ba noppi dañ ca teg sant te boo santee yàlla dool na wala in shakartum la ko mbokk yi gis ngeen kon mbokk yi jàpp foofu mu toll ci borom bi subhanahu wa taala waaye tamit amante beneen taxawaay beneen taxawaay ni ko te julli li muy màgg màgg diis ko mën a nangu mukk lu dul dañ ak laab da koo jiitu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon xam njariñul jàpp ak tolluwaay ba mu ne laa yuq laa yaqbalu llah salaata ahadikum isa ahdasa ataa yatawadda képp koo xam ne yoroon ngam jàpp dem ba njàpp ma taqali ko ak yow boo ca jullee ta jappato neena na julli mom sun borom du ci baye xel bo demé ci téré bu ñu wax sahihul bukhari eh, xët wa tolloog juroom benn junni ak juroom ñent téeméer ak juroom fukk ak ñent fofu la ko hadis bi di feñalé mbokk yi jappit ndike dana sarop cofeel cofeel mbokk yi mbeugël gën gan mbeugël ak yalla mbokk yi loolu la ñepp yi wër jam bi mëna bëgg yalla lool waye ndax yalla bëgg nako ndax yalla bëgg nako bu ko defee kon fexe ba ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg la yow mu bëgg la yow ndax dégg naa wolof yi di wax naan euh, bëgg buur buur bëgg la da koo gën moo tax nga gis kon dana waral cofeeluk suñu borom subhanahu wa ci jaam bi te yàlla day képp ko xam ne cofeelam gi tàbbi na ci yow di nga texe àdduna euh, di nga texee alaxira ndax mooy borom kërug àdduna waaye mooy borom kërug alaxira mbokk yi moo tax borom bi subhanahu ne inna allah yuhibbu tawaabiin wa yuhibbul mutatahhirin wax jooju boo demee ca suratul baqara aaya ba tolloog ñaar téeméer ak jaar fukk ak ñaar di nga ca fekk aaya boobu kon mbokk yi ndike cofeelu yàlla ndike dees na ko man a amee ci jàpp mbokk yi kon jàpp gis neen yitte ji nga xam ne ak tolluwaay ak maqaama mi ko suñ borom jox loolu rek jar na mbokk yi boo jullee boo julliwul ak lépp foo toll ngay taxoo njàpp euh, ndax borom bi subhaanahu wa taala cër bi ko jox ak maqaama mi mu ko jox kon mbokk yi jàpp ngoog ko jàmm daal la ci moom muy taxoo njàpp mi eh, fu mu toll euh, bokk na ca beneen poñ bi nga xamante ne jàpp dana ko waral mooy àjjana ji ñu wër mbokk yi ku la bëgg ko lool bëgg yërmaane yàlla bëgg ngërëmul yàlla ba képp ko xamante ne yaa ngi nuyu sa mbokkam jullit li koy wax mooy yàlla nga dem àjjana yàlla nga dem àjjana ndax àjjana mooy jàmm àjjana mooy sutura àjjana mooy xéewal àjjana mooy ngërëmul yàlla moo tax suñu borom indil ñu ñaan guréy googu muy nuyu boobu muy tànnal muy asalaamaaleykum asalaamaaleykum la muy tekki mooy yàlla nga dem àjjana mooy àjjanay àdduna àjjanay alaxira mooy yàlla nga nekk ci jàmm te ku ne xam ne àjjana moom mooy jàmm wallahu yadoo ila daari salaam ادخلوها بسلام امنين غيس نكو القران نون مون كو ن اجنا نك سلام رك لا موتاخ بروم سبحانه وتعالى نديكاتي لومس ن امك اجنا لومس ن دوك اجنا تي نياب موتاخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم ليرال نكو تي كاد يو لير واخني امول بن جوليت بو خامني دا نياب رافتال نياب ما لول ginaaw ba nga ko defee ba noppi mu jub julli ñaari te jublu ci yàlla kese ci xolam bi nee na kooku day jaam bu ko def amul amul lenn lenn loo xamante ne moo cay topp lu dul suñ borom warlu la aljana moo tax mu ne maa min muslimin yatawaddau fa yuxsina wuduahu summa yaqumu fa yusalli rakkaatayni muqbila alayhima bi qalbihi wa wajhihi illaa wajabat dahul janna kaddu googu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon mbokk yi ndikate jàpp maqaama yépp moom am na ko kon daal mbokk yi euh, jaamu yàlla ngoog gu jar a bàyyi xel jaamu yàlla ngoog gu xamante ne gu mat a fonk la mbokk yi dem na ci ba euh, jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa ci kaddu yim ci génne mu ne amul kenn koo xam ne dana jàpp rafetal njàpp ma lool bu ma teg ci ñaan yi nag kaddu yi muy ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh allahum اجعلني من المتطهرين واجعلني من التو... اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين mu ne ñaan boobu saa bu ko nit ki defee ginnaaw bu jàppee ba noppi nee na illaa futihat lahu abwaabul janna asamaaniya yadxulu min ayyuha shaa Euh, kon mbokk yi gis ngi kon euh, yonent bi sallallahu alayhi wa bi saa bu jàppee ba noppi rafetal njàpp ma lool teg ca seede yii muy seede la yàlla rek ay buur seede ne sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawul yàlla la daal di ñaan yàlla mu dimbali ko boole ko ci ñu jéggal waaye dimbali ko boole ko ci gaa yi nga xam ne dañoo laab nee na su ñaanee ñaan googu ba noppi suñ borom ci saa sa day joxe ndigal ñu ubbil ko juróom-ñetti bunti bunti àjjana yëpp bu ko ci neex rek incha rabbi su génnee àdduna man caa tabbi kon te lolou kat bi kilifa la ta kilifa gogu di sayyidina muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, sallam te yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam yi alquran mo ni jangal ni lepp lu wax ci lamagnam bi sun borom moko sant ne ko wax ko du wax mukk ci cobaray bopam ndax alquran mo ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon mbokk yi euh, japp bokk na ca lamuy sabab ndike dana yëkkatil nit ki ay daraja dana yëkkatil nit ki ay daraja buñ waxe daraja nak mooy gën a jege sa borom gën a am cër ci sa borom gën a jege gën a am cër ci sa borom sunu borom gën laa bàyyi xel moo tax ñu jëlee ci benn jàngalekatu xadis ñu koy wax abi hurayra ñu ne nag an nabi sallallahu alayhi wa sallam xool benn bis daal jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi toog ne leen xanaa du ma leen tegtal loo xam ne su ngeen ko defee seen bakkaar yi dana far yi nga xamante da ngeen koo toggoo ci ay njuumte dana far waaye tamit bu yem ci far waaye tamit dana leen yëkkatil ay daraja bi ngeen gën a jege seen borom gën a déggoo ak seen borom gën a am cër ci seen borom ñu ne ko aha kay yow mi yàlla yónni mu lépp mooy rafetal matal matal am njàpp ci jamono yi nga xam ne jafe na bari ay jéego yoo xam ne yaa ngi koy jéego jëm ko ca jàkka ja ak di xaar waxtu su waxtu rombe rek nga toog di xaar waneen waxtu nee na loolu day ni ngeen ko ngoy te xam ne bunta ngoog boo xam ne lu gaaw a gaaw la ci far seen bakkaar yëpp waaye yëkkati leen ay a teg ci kaddu ya nii lañ ko jëlee mu ne an abi hurayra radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam ma tax du ma leen tegtal ala ma yamu llahu bihi alqataaya mbir moo xam ne yàlla da ci sukkandiku faral leen seeni bakkaar jéggal leen seen ay njuumte wa yarfau bihi darajaat mu yëkkatil leen ci seen i maqaama mooy seen i daraja xaalu bañ dëggaloon rek ñu yàkkamti lool ñoom ñëpp mel dañoo waxandoo ne ko aha kay balaa yaa rasulullah aha kay yow mi yàlla yónni loolu kay bëgg nañ kuñ ko tegtal lool ndax loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy wër ci àdduna bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal leen di tontu ne leen isbaaqul wudu mooy ngeen matal njàpp ma njàpp ma isbaaxul wudu rafetal njàpp ma waaye alal makaarihi ci yi nga xamante ne nag su njàpp jotee te mënoo ko nga sallallahu alayhi wa sallam na ci màndarga yi nga xam ne ba dina yëkkati nit ki ay daraja dana taxit suñu borom jéggal ko ay njuumteem jéggal ko ay bakkaaram jéggal ko ay rëcc muy mbir yu ama ama am solo yonent bi benn bis mu toog a gaa yi ne leen mu ndax duma leen tegtal mbir moo xam ne day yàlla dana ci sukkandiku jéggal leen seeni bàkkaar yàlla dina ci sukkandiku yëkkati leen seeni daraja ñu ne ko ah ah kay yow yàlla yun loolu dong lañ bëgg mu ne leen rafetal ak njàpp ma bari ay jéego jëm ca jàkka ja waaye tamit di xaar waxtu julli ginnaaw bu julli jàlle mbokk yi ñett yi lu gaaw gaaw la ci yëkkati nit ki ay daraja daraja mooy mu juboo ak boroomam am li nga xamante ne mooy ak ku jëm ci boroomam mooy mu am loo xamante ne suñu borom daf ko cay bàyyi xel jamono bu nekk nga xam saa bu taxawee ne allahumma suñu borom bàyyi ko xel lool nga xam day dem ba bokk ci awliyaullah yi nga xam ne yàlla daa méngoo seen mbir hadis ba nag nii la ko nettalee ci ak yàq mu ne jëlee na ci abi hurayra an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal alaa adullukum mu ndax du ma leen tegtal alaa maa yamhullaa ci kaw mbir moo xam ne sun borom da cay far alxataaya ay njuumte waaye bàkkaar ndax mbokk yi nit ci ak mata dem na ko wóor ne faw muy defi bàkkaar di tooñ di tooñ boromam moo tax yàlla ubbi buntub tuub ngir bëgg jaam ñi di tuub jamono bu nekk di dellu ci moom moo tax suñu borom subhanahu wa taala waxoon ci làmmiñu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne kullu ibni aadama xata képp koo xam ne doomu aadama nga njuumkat nga bépp doomu aadama da nga def bakkaar sa diggante ak sa borom waaye nag wa xayrul xataa yi ñi gën ci ñuy tooñ ñi gën ci ñuy juum ñi gën ci ñuy def bakkaar seen diggante ak seen borom at tawaabiina mooy ñi nga xam ne su fu mu leen dala rek ñu daw dellu seen borom daal di jégalu xam ne dañoo matadi suñ boroom daal di ubbi buntu yërmande ubbi buntu njéggal boobu daal di leen di jéggal moo tax yonent bi mu waxee loolu ñu ne ko balaa yaa rasulullah mu ne xaala ma isbaaxul wudu nga rafetal njàpp ma ci jamono yi nga xam ne ay am na lu mel ni dangaa amee ab sedd lu mel ni dangaa amee ab sedd sedd bi bi ko amee nanguwul ndox mi waaye amuloo loo tàngale ndox nga jaayante ko ba jàpp ca nee na su boobaa kat loolu la ñu tuddee a isbaaxul wudu anil makaari wala yaram wi sutante wala nga ne ci beneen xat nga jaayante ko ba jàpp loolu la ñuy tuddee isbaaxul wudu nee soo ko defee ba noppi nag nga teg ca di baril ay jéego jëm ca jàkka ja ak xaar waxtu julli ginnaaw bu waxtu jàllee maanaam waxtu yi boo sëlmalee rek xaar geneen julli xaar geneen mbokk yi ñu dañ koo déggee julli suba toog di xaar tisbaar sëlmal tisbaar toog di xaar tàkkusaan sëlmal tàkkusaan xaar timis sëlmal timis toog di xaar ge déedéet sun borom subhanahu wa taala dafa wax ci suratu juma fa iza qudiyati salaat fantasilu fil ardi saa bu ngeen sëlmalee jóg leen yàlla santul kenn nga sëlmal toog fa rek jëmale déer déedéet fa iza qudiyati salaat fantasilu fil ardi nee bu ngeen sëlmalee rek jóg leen dem liggéey jóg leen dem liggéey loolu la yàlla santaane moo tax day bañ jàmbu ñu sëlmal tisbaar nga yor sa kurus toog ci jàkka ji nekk fa ba timis fekk la fa déedéet ndax am na jëmm ji ko doon def waaye ba mu koy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa laaj kooku ana yan ñoo ko yor ñun ñoo koy dimbali ñu ne ko waa koñ bi ñooy wut ay ndab di ko jox muy lekk mu ne waa koñ boobu togg di ko jox ñoo ko ëpp ëpp ak jaamu yàlla ñoo ko ëpp daraja seen borom ñoo ko ëpp ngërëmul yàlla kon mbokk yi gis ngeen ndikatee léeg-léeg aw ñam sax ëpp daraja loolu intisaar mooy saa boo sëlmale rek sam xela nga caa bàyyi xel beneen julli ga su ko defee loolu su nekkee ci yow sa ruuxu dana dund sa xol di dund sa xel di dund dana sori lool ak tooñ sa borom waaye dana sori lool tooñ sa moromum jaam loolu mooy intizaaru salaati baada baada salaat mbokk na ci mandarga yi nga xam ne julli dana ko maye mooy mandarga muy ay xàmmeekaay yoo xam ne dañ ci xàmmee ne kii ab jullit la kon gis ngeen mbokk yi jàpp ni mu amee solo wax joju nak ñu jëlé ko ci ibnu عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولا تحدوا واعلموا انا من افضل اعمالكم او ان من افضل اعمالكم الصلاه ولن يحافظ على الوضوء الى المؤمن من نين خامنا غيناو بو نين نكاي جوب نين خامني na ngeen waajal te ngeen xam ne li gën ci seen jaamu yàlla yi mooy julli waaye nag na xam ne ab jullit képp mooy ki nga xam ne mooy sàmmonte njàpp fu mu toll kon ndike bokk na ci màndarga yi ñuy xàmmee ab jullit mooy fu mu toll mu taqoo ak njàpp mbokk yi ñu njëkkante waxtu yi muy poñ bi mujj mooy julli euh, njàpp bokk na ci lii sabab suñu borom di nangu ñaan jële nañ ci benn saxaaba ñu tuddee maas ibnu jabar radiallahu anhu xaal mu ne maa min muslimin yabiitu ala zikrillahi taahiran fa yataara min alleyli fa yasalullaha xayran min addunia wal axira illa aataahu iya mu ne amul benn jullit boo xam ne da nga tëdd fanaanoo njàpp waaye dem ba ci biir guddi gi yàlla def na nga am loolu tubaab bi tuddee insomnie nga xam ne mënoo nelaw di wëlbatiku di wëlbatiku ba yàgg nga jóg ci biir njàpp moomu nee na jàkkaarloog sa borom ñaan ko nee na yonent bi nee na amul lenn loo koy ñaan ci diggante ñaari kër yi muy àdduna ak alaxira du dul bu suñu borom du ko yëkkati teg ko say loxo mbokk yi kon gis ngeen euh, taxawaayu njàpp ak tolluwaay bi mu am lii daal mbokk yi moom lañ andi woon euh, caméraman bi nga xamante ne moo nekk ci mbir mi mu ngi ñuy euh, won nañu li ñu amoon ci waxtu jeex na su ko defee amoon nañu yéene indi nag farata yi ba képp ko xam ne yaa ngi jóg di def jaamu yàlla googu muy jàpp nga mën a indi yépp waaye mën a amit yii nga xamante ne jàpp dana ko sabab kon mbokk yi loolu moo nekkoon seen jataayu jazbul xuluub ila alaamil quyub li cheikh alxadim radiallahu anhu te ki ko doon amal ak yéen di seen mbokkum taalibe euh, di seen dëkkandoo di seen surga euh, di seen xarit di euh, cheikh imam alhaaji Mamor Ñang ca Tuba Piku wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum ورحمة الله وبركاته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك